ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla suñu boroom guddal fanam defal ko taraamay gudd fan may ko wér ba naa lim yéenee liggéeyal Serigne Touba yàlla kàttanal ko ak rakkam yi topp si ginnaawam yëpp ban man koo àggale di ñaanal Serigne Amdi Fall Modou Mbenda yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool ba naa lim yéenee liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla kàttanal ko moo ki rakkam yépp ban man koo àggale bépp murit di ñaanal suñu jàmbaar ja Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké yàlla suñu borom fayal ñu ko defal ko tawfeex yokk ko tedd nga ci barkeb soxna jaara di ñaanal soxna Ayda Njaay Badaloo suñu yaay ja bay faalu maam jaara boobu yàlla suñu borom yokku leeram ca taaku si barkeem ñuy am mbégteeg kontaan bu baax ci bokkaat ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni turandooy soxna jaara yi nga xamante ni nekkoon nañ poroxaan jàngee fa ba ñibbisi taxawal daayira ci turu daayiratu maam jaara alxibaadatu wal xidma wal birru wat taqwa ci jëwrin soxna maam jaara Diouf Touba Diouf ak sëriñ Xaban Mbacke ak Serigne Djili ak yeneen mbokk soxna jaara yi nekk ci ginnaaw ñëpp ñuy ay jàmbaar di ay soldaar ànd liggéey bi di dajale suñuy àddiya mu néew mu bari di ci liggéeyal soxna jaara waaye di ci delloo njukkal Serigne Moustapha Bassirou Mbacke waa daayira bi li tax ñu taxawal ko mooy fas yéene delloo njukkal Serigne Moustapha Bassirou liggéeyal soxna jaara ndax kooku amuñu fayam ndax bu ñu xoolee ña nekkoon ca daara ja 2005 bi ñu ñibbisee rek ci xalaatu sëriñ Seex Asou Fall sëriñ Seex Mbàkke moo xalaat lii ñu taxawal ab daayra ñun ñi fa jóge woon ndax ñu bañ a tasaaroo ndax tasaaroo gi du gën lay gën mooy dajaloo gi mooy tax Euh, message bi Serigne Moustapha Bassirou bëggoon ñu jàllale ko ci lay gën a jàppandee te ci lay gën a yombee moo waral ñu taxawal daayira bi fas yéenee ànd liggéeyal soxna jaara delloo njukkal Serigne Moustapha Bassirou ci muy guddi ak muy bëccëg. waa bisu tey ji nag taxawaay ñu ci am rëy na lool macha allah ndax ci ñun nga xamante ni nekkoon nañ Porokhane buñ daan ñibbisi daayira bii ñuy gis nii ñuy sol version yi ñoo ñu daan gàttandu di ñu gunge. ba ñu dem ba mën suñ bopp ba sosal ab daayira ci lañ dajaloowe nag bisu tey ji taxawaay bi ñu ci am mooy gàttanu suñu rakk yi ak lépp loo xam ne mën nañ ko ci wàllum bernde xeetu bernde yëpp nag ñu fas yéene ñëw fii ànd ceeg euh, jëwriñ yi nga xamante ni ñoo nekk suñu kanam euh, fas yéene teeru soxna jaare yi teral leen gunge leen ba kenn ku si nekk ñu teg la sa loxo waajur ba beneen kii incha allah kontaan rek kontaan ak xol bu sedd ak it sant lu wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi ala kulli haal ndax daaray maam jaara day jëm kanam day avancé liggéey bi nekkul luy laal suuf waaye loolu dañ koy sant kilifay daara ji ak ña nga xam ni ñoo fay jàngale ci ay góor ak ay jigéen ndax lépp seenu pas-pas la ak seen jàmbaar ak seenu bëgg alquranul karim ndax chaque année rek macha allah année bu jàll rek day gàccaal bu ñëw rek day gàccaal bi nga xam ne moo jàll loolu nag liñ ciy lancé mooy waajur yi nga xamante ni ñoo fa indi seen i doom liñ def ci seen i doom nañ ko jàpp fonk ko ca bañ koo sàgganee ña nga xam ne ñoo fa génnee tamit ak ku mën a doon na nga takku jaaju góor góorgóorlu xam ne la taxoon sëñ Moustapha sos daara ja mooy ku fa génne rek nekk royukaay ñuy jànge ci yow loolu nag yow yaa ci war a góorgóorlu say waajur gën la cee dimbali taxaw la ci loolu mooy waral euh, liñ bëggoon du nekk loo xam ne day deltu ginnaaw day gën a jëm ca kanam incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di delloo nuyoo di leen siyaar. rafetlu taxaw taxawaay bi ñuy def lu baaxul sax dañuy bëgg ko siiwal eh, waxuma laa ñuy def lu baax te siiwal bi jubluwuñ ci lu dul ñeneen man ci roy man si ngaa fee ñaan maa ngi saytu njàng bi foofu ci daara bi xale yi ñoo leen di seet ba xam seen njàng fu mu ndax mi ngi rafet ndax mi ngi baax ndax mi ngi mokk ba balaa ñuy tari fii sax ci man la ñuy jaar ma xool ba xam seen mbokkal rafet na maag sama meneen mbokk mu ñuy wax Serigne Moustapha Niang sant yàlla nag rek la ñuy def ndax depuis 2008 ña nga foofu di yor loolu ñu fa yor comme assistant pédagogique di def loolu mën a wax di sant yàlla bu baax boobaak léegi ñi nga am résultat yu baax xale yaa ngi mokkal liñ ci am ci yar tamit xeebuñu ko xam nga nag cent cent kenn ci jamono ji waaye ku am cinquante pour cent sax war a sant rawatina bi nga amee lu ëpp loolu kon nag loolu dañ ci sant suñu bu baax sant ci sëñ Moussa Bassirou mi nga xam ne moo sosoon lii te moom tamit xamoon ne jigéen mooy ki nga xam ne boo defaree benn jigéen defar nga xeet rawatina ay junniy junniy jigéen loolu tamit moo taxaw mu taxawal ko loolu mu xamoon ci jigéen ak taxawaayam ci lislaam ak ci xeeb yi moo taxoon ñu nañ leen indil ay maam jaara suñu mokkalee jàng fi métier jàng fi xam-xam suñu demee jàngal ñee ñu fekke ñuy roy ci ñoom alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant suñu Moustapha di ko ñaanal suñu borom doole ko ngërëm ngërëmam ak i leeram te taasuñ ci barkeem di sant Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne ba fi jógee ba léegi moom tamit dafa yokk waaye wàññiwul di sant jàngalekat yi ak ñi nga xam ñooy surveillant bi ku mel ne sëñ Abdoulaye Diakhoumpa mi ak soxna Maam Awa Dem mi nga xam ne mooy directrice de l'étude bi ak sëñ Abo Diakhaté mi nekk directeur général bi ak ña fay jàngal ña liggéey ñëpp te biir euh, taman ma bokk ci ak ñeneen ñi des ñuy sant bu baax ba daal ci taxawaay bi xanaa soo ñuy weesuwul rek waajur yi nga xam ne ñoo joxe woon seeni doom ba tey ñu mokkal ñoom war a ñibbiwaat ak ñi bind kaamil ba war a ñibbi ak ñi nga xam ne mokkal nañ waaye dese nañ fa trois cent yoo xam ne pour formation professionnelle beeg yooyu ñu ñaan leen lii ñu def ci ñoom ñu yokk ko waaye buñ ko wàññi lii si ñebe laay joxum wax léegi li ñuy seetaan nañ koy contrôler kenn télé wala ñu seetaan télé wala yor portable waaye ñuy ñaan li ñuy li nga xam ne moom lañuy ñuy liñ def ci ñoom suñu demee ñu saytuñu ñu ko buñ ko wàññi nañ ko yokk nañu saytu li ñuy fréquenter. ak ñi leen di seet si nañuy bàyyi xel tamit ñi nga xam ne moom lañuy seetaan ci télé yi ak lu mel noonu loolu daal ndax dañu bëgg fu ñu dem doon fa ay royukaay ñi mokkal ñoo moom loolu waaye ñi nga xam war nañu delluwaat tamit ñu saytul ñu liñ def ci ñoom ba bu ñu dellusiwaatee bu ci dara wàññeeku durant liñ fay nekkaat ci ñetti at yi ñu mën caa defaat leneen liñ leen di yokk dafa si Ablaye Jaxumba mi di surveillant général bi wax na lépp li ñu waroon wax fii saytu bi day moom niñ ko waxee rek man dama leen di wax ne leen ñëw fii jàll sax moo gën a yomb jàll foofu ndax ah, xam nga xale yi boo ñëwee rek sa at bu njëkk rek ci lañ lee commencé di la xool yow mii door a ñëw booba dañuy natt sa xel natt sa yar ba xam fa nga yaroo nan lañ la yare waaye ndax yaa ngi doon jàng ak su dee yaa ngi doon jàng loo doon jàng ndax xamoon nga ci dara waaye xool ba xam ndax li la wër yaa ngi ko doon xam moo tax dañ la laaj laaj yu bare bëri ci sa waajur laaj la li la wër lu muy liggéey lu muy def nanga ba xam sa xel parce que loolu dañ ci tenir kon bu ñu leen di na ci jàngalekat xam nga jàngalekat yemuñu noonu la ñu su ko defee nag saa bu ñu demee deux mois ñu tàmbali nag di xool foo toll ci sam njàng ndax mi ngi rafet laaj la ci li nga weesu xool bu dee fergu ji ba xam fergu ji bu dee dem nga ba sori ñu xool li nga weesu ndax mokk na wala mokk ndax njàng mi rafet na tëj bi ak yàq yi ndax baax na bu noppee ñu noté ko bu ñu ko noté ba noppi jox ko jàngalekat bi moom mu xool parce que bu xoolee am na lu mu ci war a jël parce que am na loo xam ko woon a seetlu ndax biir classe bi xumbaay bi ñun ñoo ko mën a xam buñ ko joxee bu seetee moom tamit soit mu foto ko ci appareil am pour di ci tenir compte bu noppee nag ñu door ko jox soxna maam awa dem moom mu garde loolu suñu demee dem at mu ne dañ leen koy def nag durant li ñuy jàng alxuraan at mu ne dañ leen koy def di xool waxtu ne fu ñu toll ci la ñuy xamee sax xale bi nga xam ne ndax njàngam jàpp nañ ne dana mokkal wala déet ci lañ koy xame parce que xale bu def trois cent te fere ba ijji wala xaajagu ta wàcc da nga xam ne kii moom koy ba ñu seet beneen pexe dugal ko ci centre bi wala dara bu fekk ay parents bëgg nañ e ci la ñuy xame tamit xale bi nga xam ne xëy na balaa juróomi at yi mën naa mokkal ñu door ko bàyyi mu dem e, jàng bu ñu demee tamit ba nga xam ne jàngalekat bi ci boppam nee na man de xale bi wóolu naa ko wóolu naa ne mokkal duñ ko doyloo de dañ koy jaarale ci ñun ñu xool loolu ba xam ndax wér na parce que ba mu koy diglu ci biir classe ba ak mbooloo bu bari la ko doon diglu mën naa am lu rëcc fee ci bureau bi man ak moom rek la ak yàlla danaa gën a mën a teewlu ak it loo xam ne mayu yàlla la ba ma ciy génn loo xam ne ñoom sax may na naan duñ ko ci xam des fois da nga présenté sa xale indi ko man bu ma ko xoolee gis ne mokkalu wala suñu savaay ñoom ñu fa indiran ngir mu di ma jàppale moom sax fa la nekkul depuis 2005 da doon jàngale gannaaw gi lañ ko indi comme lim bi dafa bari xam nga 550 dafa bari ñoo ko ta moo tax ñu indi ko mu di ma jàppale léegi nag buñ leen seetee ci bu jàngalekat bi na mokkan dañ koy seet léegi la ñu seet kenn na ko mokkalut mu toog bu ñu seetee kenn gis na mokkal ñu yebal ku mu ñëw bu ñëwaatee fii tamit gis nga seet bi ko suñu sojo wax na ko sévère bi ñuy def ba noppi loola tax daal ñuy wóolu ne fii ku fi génne ca jaar fii yëpp rëcc rek jàpp nañ sam jàng mokkal li ci am solo na mooy alxuraan nag foo ko bàyyi mu bàyyi ñun ñëpp demoon nga mokkal alxuraan di ko tari lu bëree bëri nga gëj at rek fàtte ko ba da ngay tàmbaliwaat di ko jàngal loolu kon waajur yi nañu dimbale xale yi ku ci ñibbi nañuy nafar ndax ku nafarut da ngay fàtte ku nafarut da ngay fàtte loo mokkal mokkal boo nafarut fàtte ñun ñëpp daanaka jaar nañ loolu daal lañu amoon di ñaan suñu borom eh, taxaw leen yéen tamit dem leen a sàmm dem na a barkeel seen liggéey di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah rabbil di loolee sant yàlla di doole sant yonent ba doole sant Cheikh na Ahmadou Khadim mam bot boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba lépp moom la moom la fi moom la fa jëm ëllëg di doole sant sëñ Moustapha Bassirou bu ñu ko doolee sant di liggéey bi mu ñu fi defal mënuñu koo fay kenn amul fay yàlla rek moo ko mën a fay di ñaan lépp liñ ci sentu yàlla nañ ci gis lu kawe njorta ñun waajur xanaa lañ de xaw a di réccu xaw a yéex yóbbu njaboot gi sax ndax alxuraanu karim amul dara lu ko mën a jënd amul dara lu ko mën jënd amul benn alal du ko mën a jënd loolu yàlla ay baaxee la yàlla mu ko sàkk rek moo ko kon nag ku ko solal ci sa doom amoo payam noo ko fay di ca doolee ñaanal di leen doolee ñaanal ñoom ñu ko seq ñu waa daara ji yal na leen a yónni Tuubaa sëñ Tuubaa xam mu Seex Ahmadu Bamba fay ñun waajur mënuñu leen a fay li ñu seent njaboot yal leen toog ba gis ko yal leen toog ba teg seen bët tañ bokk ne defal ñu loo xam ne ñun waajur mënuñ ko def ci njaboot mbaa boobu du waajur lépp ko mën te buñ ko mënee ne am na fu mu yem kon la daara ji liggéey ci njaboot ñoom rek ñoo ko mënoon liggéey donc euh, euh, waajur yi jërëjëf sax doyuñu dañu amoon leneen lu ëpp jërëjëf am dañu amul leneen lu ëpp jërëjëf waaye nag bàyyi nañ la yàlla ba sëñ Touba xarbu Cheikh Ahmadou Bamba yal na leen yal na leen fekk ndimbal suñu borom tabaraka daa mokkal wala daa waaw suma doom daa mokkal ba génn ba jeexal ren ba bind kaamil man mii di waajuram day jàng naa alxuraan waaye suru man sama suru googa ma rëcc woon loolu yëpp dégg nga ba xam ne dama doon ñaan yàlla su ma joowoon ma am ku mu ne rattrapé man loolu ma rëcc yàlla defu ma ko ci maam jaara ñu wàcce alxuraan ren euh, ba bindukaay mi wàcc na sax ci ñetti at yi ci gannaaw ñu ko ba bindukaay mi ba ñoo jébal ko sëñ sant yàlla yàlla na yéegi wàcc ci moom njaboot yëpp. lépp luñ fi séentu yal na ko ci yàlla defal ko suñu jot te fekk lépp te tal ko waaye euh, daara Porokhane waajur amuñ seen pay amuñ seen pay amuñ seen pay waaw luñ ci def dañuy góorgóorlu rek dañuy jéem waaye yàlla ñu fa suñu taal fay Moustapha Bassirou muy sas li rek moo ñu moo leen mën a fay yal na leen fay lu ko way jot yal amuñ seen pay mënuñu ko sax mënuñu ko ki sos lii moo leen mën a moo leen fëte ci ki sos la yàlla ko mën a fay ak Cheikh na am na xam ne membre ba xam ne Cheikh Badara moo si yaakaaru àddina àllaaxira waaw